yéen mbokk yi topp seen site MOTV Sénégal seen mbokkam daara Alioune Cissé mu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla jàmm te di ko sàkku ci yéen di fas yéene dellusiwaat ak yéen ci liggéey bi yi nga xam ne baaxoo nañ di ko ànd ak yéen mooy doon jéem a toppante ak yéen téere bi ñu tuddee risaala ci bunt ba nga xam ne ma ngi cay jàngale lu aju ci wàllu koor ba yàlla àtte woon na jël nañ ci ak yéen lu tolloog ñeenti dars tey ñi fas yéene ñëw ak yéen tey suñu juróomeelu dars xam naa njëkk dara rek ñu ngi nuyu suñu groupe ba suñu groupe àndoo taxaw ji la xaar ba di rafetlu macha allah bàyyi xel gi ngeen ñi bàyyi xel ak topp gi ngeen ñi topp di jaajëfal mboolem kilifa fa nekk ñëpp di wax allahuma amin ci seen i ñaan. mu mel ni keroog bi ñu fiy mujj nag borom téere bi mi ngi doon jàngal ki nga xam ne jëm na ci wàllu tukki. nga xam ne charia may na ko mu dog bu dee distance ba mat na 70 kilomètres mu mel ni tey li muy jàngale tamit xawut a sori lool mu war a commencé wa man saafara aqalla min arbaa buradin fa zanna anna alfitra ay bam jeex mu ne wa man saafara kook tukki na aqalla lu matut lu gën a néew min arbaati buradin ci ñeen fukki burud fa zanna mu njortu na anna alfitra naka dak mubaaxun lu dagan la képp yoo xam ne mu doon tukki daal distance boo xam ne matul 70 kilomètres waaye boobu mu jàpp ne dagan na pour mu dog ndax xamutoon distance bi ñu war a dogee faafa dara mu dog ngir lool falaa kafaarata alayhi déet kafaarata ka ci war wa alayhi dana ko war nag alxadaaw fay faqat dong képp ko xam ne da doon tukki daal tukki moo xam ne matul 70 kilomètres nga yaakaaroon ne kuy tukki rek da ngaa war a dog ba tax nga dog ci lu mel noonu lool da ngay fay dong waaye kafaarata ji war wa kullu man aftara képp koo xam ne dog na mutaawilan tax aji taawil fala kafaarata alayhi déet la ci waat maam mi a jàngal li ñu tuddee taawil maam li ñu tuddee taawilul mooy taawilul baid muy ñaar taawilul nag kenn du ko kafaaral mooy lu mel ni lii ma wax léegi da ngay tukki jàpp ne ku tukki rek da tax nga dog fekk li ngay tukki distance bu matul lu ñu war a dogee boobaa da ngay fay kenn du kafaara wala ki nga xam ne dafa amoon régal jigéen gi amoon régal set na ci guddi gi waaye sanguwut mu xëy jàpp ne ku sanguwut rek war a woor ba tax mu xëy ndékki booba dog goog tamit kenn du ko kafaaral ndax dafa fu mu tegu wala ki nga xam ne jote woon naag soxnaam yàlla dogal na ba fayal jot fekk sangoogut mu jàpp ne loolu day tax sa koor du wér ba tax mu ñàkk ko war kooku tamit boobaa du kafaara ndax tawilul baid lañ koy jàppee waaye kii kafaara nag mooy ki nga xam ne def na li ñu tuddee tawilul baid moom moo mooy ci misaal mooy koo xam ne chaque jeudi nee na boppam day métti tey la jeudi rek maanaam suba la jeudi mu ne suba sama bopp day métti du ma woor kooku bu xëyee su bopp bi ak su métti wat day fay ànd ak kafaara ndax mbir mi da war a nekk ba ngant li fekk la si ndax ngant li moo tax ñu teggil la ko waaye yow noo koy ngant ñëw ñëwagul ngay ñàkk woor yow koy xëyal woor boo xëyee woor bu ñëwee ah nga dogg xam ne ngant ñëw na bu ñëwul nga continuer waaye quant à chaque jeudi day métti rek suba la jeudi nga ne du loolu képp ku sukkandiku dog da ngay fay ànd ak kafaara wala man sag la cinq sag la cinq damay gis baax damay gis règle suba la cinq rek du ma woor xëy rek na du ma woor loolu tamit boo ko defee boo xëyee bu règle bi ñëwee ak bu ñëwut yëpp da ngay fay ànd ak kafaara loolu lañuy tuddee tawilul baid kon ndakam règle bi moo tax ñun la bul woor kon da ngaa war a bàyyi ba mu dab la nga door a dagg bu dee bopp bi métti bi moo lay tax ñu ne la ngay naan separ da ngay dog kon da ngaa war a xëy woor ba bopp bi daane la nga door a kon loolu lay tuddee tawilul baid ku ko def da ngay fay ànd ak kafaara tawilul xarib wax naa la ko mooy yi ma la njëkk a tuddal mooy ku xëy am janaba rek jàpp ne ku am janaba fekk sangu war a woor ba tax nga dog kooku tawilul baid xarib lañ ko jàppee wala ki nga xam ne jote naa soxnaam sangoogut yeew jàpp ne ku am janaba war a woor ba tax mu dog kook loolu lañ koy jàppee ah, tawilul ah, xarib wala ki tukki jàpp ne dog dagan na ci moom ba tax mu dog te biñ xoolee di san fekk matul lu ñu war a dogee kooku tamit tawil xarib lañ koy jàppee kon baax nañu ñu xàmmee ko kon bu baax booba léegi nag mi ngi lay tuddal kafaara ñen ñoo ko war a def ak ci lan lañ ko war a defee moom la la bëgg a leeralal mu ne wa innamal kafaaratu daal naka kafaara daal ala man aftara war na ki nga xam ne dog na mutaammidan te fekk moo ko tey ki dog te tey ko daal moo war a kafaara moo xam bi akalin dafa tey lekk aw surbin wala dafa tey naan aw jimaain wala booloo mu am sëy ku def ci yii moom te ànd ak maal xadaa yi nag ànd ak fay timit di kafaara gi day ànd ak nga fay bis ba te xam ne képp koo xam ne dog nga ci bis benn bis sa tay ko yonent yàlla mu xam ne noonu tali te sa dund na koo fay ndax bis boobu jàll na waaw na ndax innal jadidayni iza mastawla yaa ada jadidi addina yaahu lil bi bàyyi xel ñàkk nga ko ba faw bis boobu mënut ko mën ngaa wut beneen grand placé ko waaye bis ba moom ñàkk nga ko mu ne wal kafaaratu kafaara na fii daalika ci yi mu tudd itaamu sittiina miskin mooy lexal juróom benn fukki miskin li kulli miskin ñeel bépp miskin mudd mudd bi mudd nabi sallallahu alayhi sallam ma bépp miskin nga jox ko mudd ci mudd yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne fa daalika mu fa daalika loolu nag di lexal miskin boobu axabbu moom lañ gën a sopp ilay naa ci ngir maalik lu tax ñu gën koo sopp mu ëpp njariñ moo tax ndax da nga ci jox lu ma juróom benn fukki miskin ku nekk jariñ ci moo tax boobu lañu sopp nga njëkk ki njëkkee ko bu dee amu ko nag walahu ñeel na ko ani kafira ba mu kafaara bi atqi raqabatin ci goreel jaam bu amoo lee nag nga door a ñëw ci bii mooy goreel jàmm bu dee amoo goreel jaam nag aw ni bi siyaami shahrayni na wala nga woor ñaari weeri toftaloo bu dee bee daal lañ gën a bëgg bu dee mënoo ko nga door a ci goreel jaam bu dee mënoo ko nag nga door a ñëw ci ah, woor ñaari weeri toftaloo waaye nag ki ñu tuddee yaxya ibnu yaxya moom dafa wax ne nag bu dee ku mel ni buur la wala borom alal moom duñ bëgg mu lexale ndax ñoom lexale du nekk dara ci ñoom te mbir mi pen la buñ la teg te pen bi da nga war a yëg kon bu dee borom alal la wala ñu mel ni ay buur ak yooyu ñun dañuy gënal ci ñoom ñu woor ñaari weer yi ndax moo leen ñu a mbugal waaye ndax bu dee borom alal nga naan ko joxeel ay 600 ku joxe 600 du nekk dara ci ñoom goreel jaam tamit ngay ko wàññi du waaye woor ñaari weeru toftaloo yi yooyu dina toroxal bakkan dana métti ci bakkan lool waaye bu dee nag koo xam ne kiiwu ko moom ndax bee ëpp njariñ moo tax ngir mi gë jiital boobu waaye ibnu ibnu yaxya ba tey ci ngir mi la bokk nee na bu dee ñu mel ne borom alal yu bëri yi daal ñoom daal woor ñaari weer yi ñoom moom lay gën a tànn ñuy jiital ko ndax ñoom moo leen di gën a sonal te mbir mi pen la boo xam ne ndax ku yàlla woorloo nga dag da tey ko kon dañ laa war a teg pen te pen bi da nga kaa war a yëg kon ñoom woor ñaari weer gi daal muy gën a métteeg mu ne walaysa ala man aftara déddi war fi qadaa'i ramadan ci fay weeru koor mutaammidan ci tey kafaaratun kafaara ki daan fay weeru koor ba ca digg ba mu dog ta tey ko kooku tamit loolu kenn du ko ci kafaara waaye nag day fayaat bis ba rek mu ne waman uxmiya ko xamloo nañ ko waman nañ ko laylan ci guddi la xam fa mu ximmeeku baada tuluu'il fajari ginnaaw ba fayal xare fa alayhi war na ko alxadaawu sawmi fay koor gi képp ko xam dangaa xamul ci guddi gi bi ngay ximmili ko fekk fa yar xar na jot na boobaa bis boobu da koy fay waaye jullee nag moo tax mu ne walaa yaqdi du fay min asalawaat ci julli yi jullee nag ko fay dañ ko koy jégal illa ma bi nga xam ne ximmiliku na fii waxtu yi ci waxtoom mu ne baax yi dana jaadu wala wayan baax yi dana war wuute la li saaimi ci aji woor an yaxfasa ba mu wattu lisaanahu làmmiñam wa jawaarixahu ak ay cëram wa yaazima mu màggal min shahri ramadaana ci weeru koor ma azama allahu comme ni ko yàlla màggalee bi nga xam ne yàlla màggal na ko mu ne dafa war ci aji woor ji nag mu wattu làmmiñam ndax ñu ne boobaa lii obligatoire la ñu ne luñ sopp la ñu ne dafa war war goo xam ne da war a def force pour mu wattu làmmiñam ndax làmmiñ dafa yéeme nekk cër bu gaaw yéeme ndax ki yàlla yéen si ñun sallallahu alayhi wa wax ne man lam yadaa qawla zuuri wa amala bihi fa laysa lillahi xaaja fi an yadaa taamahu wa sharaabahu mu ne képp koo xam ne soo waree mënoo bàyyi waxi caaxaan ak jëfi caaxaan ne ni ko yàlla amul benn intérêt ci ngay bàyyi sa lekk sa naan kon nit ki bu waree kon bëgg ne mu sàmm làmmiñam mooy bi ci njëkk waaye nekk na bëgg ne mu sàmm ay gisam muy bëtam waaye naka noonu bëgg ne mu sàmm ay loxoom waaye sàmm ay tànkam sàmm biiram sàmm përam ah, pëyam yii yëpp nit ki war na koo sàmm waaye bi ci gën a yéemee mooy làmmiñ nga xam ne moo ci gën a danger nga xam ne ke yàlla yéen si ñun mi ngi wax ne jaam su yeewoo cëram yëpp dañuy ñoo dajee ci làmmiñ ne ko dimbali ñu ngir yàlla tey bu fi wax li ñuy defee musiba bu fi wax li ñuy xeexee bu ci li ñu amee problème kon ah, làmmiñ ji cër bu yéemee Seydina na bis dafa dugg ci Seydina Aboubacar fekk ko ma ngay mbugal lam yow mbugal yu métti mu ne ko looy def nii mu ne ko kii lu ma dugg moomu ci dugal lu ma def lu ma yeddee ma ko yóbbee mu ne nag ndagam Aboubacar mooy def loolu sàkkaa ñun kon ko dikk bu waree ngel waay na téye làmmiñam waaye naka noonu na téye ay cëram nopp yaag gémmiñ gaag bët yaag loxo yaag tànk yaag pëy maag yépp na ko téye warmal bëccëgu weeru koor bi ndax xam ne na ba tey ki yàlla si sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ne nit ki bu dee bu wooree mënut a bàyyi jëfi caaxaan mënut a bàyyi waxi caaxaan nee na kooku yàlla amul benn soxla ci muy xëy di bañ lekk bañ a naan kon nit ki bu wooree nit ku ne bàyyi lekk bàyyi naan rek mooy koor mais cër yëpp da ci duggaale lépp nga fegu leen xam ne lii jaamu yàlla goo xam ne dafay laaj nga téye say cër te lépp. mu ne wala yaqrabu bu mu jegee nag as-saa'imu aji oor an nisaa ak jigéen yow mi woor nee na sori jigéen ñi bu leen jege bi watti in ci ànd mooy ci sëy wala mubaasharatan du caagin ak jonjoo mooy di jaxasoog ñoom wala qublatin du caagin nag fóon li lazzatin ngir bànneex fi naxaari ramadaan ci bëccëg weeru koor wala yaxrumu du xaraam nag zalika loolu alayhi ci moom fi leeli ci guddi mu ne nag nit ki bu wooree na moytu di sëy bëccëg weeru koor loolu boo ko waaye jonjoo bi na nga ko moytu tamit jonj ak soxna yi mën naa nekk ñaari xaaj bu dee wóor na li ngay def nii boo ko defee danga ci mucc ci masiyu boobaa dañ koo sib waaye nag bu dul loolu wa illaa xaruma bu dee boo ko defee xamoo foo ci jëm xamoo foo ci mujj na nga jege leen waaye bu dee wóor na jege gi ngay jegewaat ak ñoom lu mu yàgg-yàgg doo dara du la fekk ndax amaana tàmm nga koo def waaye bu la wóor na boo ko defee masiyu fekk la ci wala man yi fekk la ci xaraam na wala xamoo ci dara yow daal lii ba lu nekk man la cee fekk xamoo ci amoo ci benn expérience boobaa day xaram nga jege leen waaye nag jege gi nee na bëccëg bi dong la nag guddi gi moom bokku ci guddi gi mën ngaa jonjoog ñoom mu ne wala ba sa dagan na an yusbiha ba nga xëye junuban ànd ak janaba bi wati in ci ànd ne dara ni ku ci nag nga xëy ànd ak ba ne loolu tamit sa koor dana wér comme ni ñu ko tuddee woon ci ginnaaw mu ne wa man tazakuk bànneexu na fi nahaari ramadaan ci bëccëgu weeru koor bi mubasharatin ci jonjoo mu bànneexu ci aw xublatin wala fóon fa am za mu masiyu li zalika ci lool fa alayhi war na ko alxadaawu fay bu dee masiyu moo ko ci fekk ci bëccëgu weeru ci jonjoog soxna yeeg jigéen ñi ba masiyu fekk ko fi day fay waaye wa in taamada zalika na masiyu mooy li nga xam ne bànneex bu ndaw moo koy waral mooy lu mel ni xool wala jonjo wala lu mel ni seetaan lu bon ak yi ne mel loolu di génn la ñuy tuddee masiyu waaye wa in taamada dalika bu ko tayee nag xataa am naa ba man yu fekk ko ci ah fa alayhi da ka ci war nag al kafaaratu kafaara boobaa nag kafaara da ka ci war bu ko ci man yu fekkee moom day kafaara fay ànd ak kafaara kafaara yi waxoon naa la ñu koy defee ci ginnaaw waaye bu dee mas yi moo ko ci fekk mooy day fay rek mas naa la bànneex bu ndaw moo koy génne man yi nag bànneex bu mag moo koy génne ku mu mel ni kon xam naa ko ñu ngi ñëw wàccee foofu kàddu bi doy lool di wax lépp li ci leer yàlla la lépp li ci lënd ah, gàtt xam-xam ak ñàkk ñi ngi jaajëfal oustaz Saïd mi nga xam ne moom lañu jàkkaarloo ci caméra bi di jaajëfal soxna Mata mi nekk ci technique bi di nuyu mboolem mbokk yi nga xam ne ñuy topp ci site bi yépp di wax allahumma amin ci seen i ñaan te di leen soññi tamit ngeen wéy di amale lépp luy jàll ci site bi ci wàllu information ci wàllu jàngale diine nag lépp loo xam ne daal doomu aadama dana ko soxla woo rek ngeen di ñu ci xaar incha allah te nekk na yéen ci kàddu gi seen mbokkam daara la Aliou Cissé in uridu ila al islaha mastata'tu wa ma asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.